Ousmane Gueye jàppale na jigéenu Saly ci wàllu financement bu baax a baax euh, parce que ñun ñëwuñu sax laaj ko ni ko jàppale ñu ñu liggéey mais moom moo woo femme adulte yi ni leen créer leen seen fédération ma jàppale leen ngeen di liggéey ñun ñu dem euh, fédéré foofu yaakaar ni fa lay yem mu organiser waat ñu ñun ñi nga xam ne ñooy jeunes yi Euh, ni ñu da ngeen di créer yéen tamit seen GIE ma jàppale leen ngeen liggéey mais ñu ngi jot ay financement bu baax a baax a baax mais actuellement nii dañoo bëgg noppal monsieur le maire ñun ci suñu wàllu bopp moo waral ñu créer fédération bi pour mën a génn dem uti ay fonds feneen ndax euh, vraiment depuis 2009 taxawaayam rafet na ci parce que fii jeune fille yi euh, dañ doon def en général ay femmes de ménage lañ doon door wala ñuy daw ci hôtel yi di déposer demande par ci par là te ñoom ñëpp xajuñu ci maire bi aussi ñu gis ne mënu cee jël ñoom ñëpp euh, ñu ne mënuñu kaay leen ngeen créer seeni i ma jàppale leen euh, boo duggee ci biir quartier yi buntu buntu kër yu nekk am na ay boutiques yu fa nekk ñii di def cosmétique ñii di fa di jaay fëgg jaay ñii di jaay ay tissu euh, boo demee plage ba femme yaa ngi def seen transformatrice di ko jaayi feneen sali fii ku fi jàng politique wala nga doon fi politicien rek mën nañ ne Ousmane Gueye moo la formé te moom toujours discours am non violence lay jiital euh, dóorewu loowul kenn kenn waxul kenn nga saaga kenn lépp lu ñuy def nañ ko def ci njëkk ak tey ak yar ak sutura euh, ñeneen ñëw nag biir Saly euh, soxla commune bi ñëw di saaga waate di xaste waate jël suñu maire bi nga xam ne ñun mooy suñu trésor ñu koy yàq lu leen neex ñun duñ ko nangu duñ ko nangu tey te duñ ko nangu suba mais aussi duñu xuloo duñu xeex am nañ suñu stratégie boo xam ne euh, lépp lu waay wax baax na mais nag yàlla mooy atte carte yi mooy atte date bi soreetul le 23 janvier incha allah dinañ leen dóor. tey dañuy sargal Ousmane Gueye parce que Ousmane Gueye li mu ñu defal jar na sargal. ndax dëkk bi Sénégal gi nak ku yëkëti 140 millions jox ko say jigen ni leen dem leen liggéey bëgguma kuy nelaw bëgguma kuy damyee bëgguma kuy lido kon loolu jaar na sarkal loolu tax tay ñun ñëpp ñu takk comme ben bulet andando jeune fille yek femme yëpp dajalé ko gërëm ko sant ko ci sarkal ci limu ñu defal. dañ ko jaarale ci IMSEC jaarale ko ci crédit mutuel fi ne financement bi képp ku ci gudd da ngay def sa demande yóbbu ko au niveau de la mutuelle. soit crédit mutuel soit IMSAC IMSEC wax ñaata nga bëgg ñu financer la. déedéet teguñu ci presque dara parce que lepp mom moko ko subventionné moom maire ci boppam mo subventionné 140 millions yi mom mo ñu defal caution donc ñun dañuy dem rek jël fay normalement ñu may ñu battement un mois. ñu dem fay li nga attan nga jël ko ko euh, sasuñu la nga jël loo xam ne attanoo ko cent mille la commencé li nga xam ku nekk xam nga say capacité li nga mën a fay cent mille la commencé nga jël ñu may la battement un mois ngay fay ndànk ndànk ndànk ndànk presque teguñu ci dara matul sax un pour cent mm. loolu ça tout ça pour mu dimbali ay jigéenam mm. loolu nag man ñi ngay waxal sax transformatrice laa ci boppam fi mu ne nii boo bëggoon léegi ma jaay la saabu tout de suite ñun transformatrice de fruits et légumes lañu transformatrice de javélisation transformatrice savonnerie transformatrice produit halieutique ci géej bi dañ koy def dañuy def céréales local kon nag monsieur le maire lépp loo xam ne formation la defal nañ ko ba pare ak petit commerce ndax ñun ñii de ñu ngi ci transformation yi ñu ngi ci petit commerce yi foire yeeg fu nekk di jaay. te jàmm ak salaam rek lañu bëgg ndax ñun suñu njiit jàmm rek la bëgg ñun jàmm la ku ñu xëcc ci ay sax duñ ca dem parce que ñu soxlawuñu ay ndax nag casserole yu yu bari bruit yu deful dara. ñoo ñooy bare bruit les tonneaux seuls les tonneaux vides font du bruit te ñun dañoo fees dell macha allah kon nag ñun jaral ñu ñu duñu xuloo duñu xeex dañu xaar ba jour ba ñu voté ndànk gagné woo laan